الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينهم عالم الغيب لا يعلو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
sunu borom mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah mboole mi sant day ñeel na yàlla allazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard moom mi nga xam ne ñeel na ko lépp lu nekk ci asamaan yaag lu nekk ci suuf wa lahu lhamdu fi l axira ca ñeel na ko sant yépp ca alaxira wa huwa alxakimu alxabir ca mooy ki xereñi ki ki ñàkk kumpa yaalamu ma yeluju fi l ard xam ne lépp luy tabbi ci biir suuf wa ma yaxruju minha ak lépp luy génni ci biir suuf wa ma yanzilu min alsama ak lépp luy wàcce jóge asamaan wa ma yaaruju fiiha ak lépp luy yéeg jëm kaw asamaan wa huwa arrahimu algafuur ca mooy kiy yërëmaate kiy jéggalaate wa qaala allazina kafaru laa taatiina alsaa mi ngi wax yéefir yi duñu dikkal mukk bisu penc qul balaa wa rabbi neel déedéet maa ngi waat ci sama boroom la taatiyannakum bisu penc day dana leen dikkal aalimil xaybi yàlla mooy ki xam kumpa laa yazubu anhu misqaalu zarra du faddu ci moom lu toll ne sax zarra danga koy wax sànqaleñ yi gën a sew ci sànqaleñ yi fi samawati wala fi l ard na doon loolee ci asamaan yala wala ci suuf wala asgaru min zalik wala lu gën a néew loolu wala akbaru wala lu ko gën a kawe illa fi kitaabin mubin lu dul mu nekk ci téere boo xam ne bu leer la mbokk li mooy suratu saba yàlla ubbee ko alhamdulillah gannaaw ba mu ko ubbee juróomi saar ci alquran lée nga xam ne nii mooy fatiha ak suratul anha an'am alhamdulillah alladi xalaqa alsamawati wal ard wa jaala zulumati wa nuur suratul kahf alhamdulillah alladi anzala ala abdihi alkitab gannaaw ba suratul fatir alhamdulillah fatir alsamawati wal ard daa di kay waxaat fii muy alhamdulillah mbokk alhamdulillah gis nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne walhamdulillahi tamla'u lmisan jullit bu waxee alhamdulillah te jox ko ak xam tuyaaba jëm cee jële fees na balance bi su pencam te mbokk sant yàlla balaa ak xama mat mooy nga xam ne yàlla moomu mooy yàlla mi yeyoo ñu jaama ko moom rek mooy borom melokaan yu kawe yi borom tur yu sell yi borom jëf yu mucc ayib ji waaye it nga gëm ne mboolem yi xiiwal yi nekk ci kaw asamaan yi ak kaw suuf ci moom dong la jógee alhamdulillah sunu yonent alayhi salaam sunnal ci ñun ku julli ba pare da nga wax fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah alhamdulillah borom bi nee na mooy ci moom lépp lu nekk ci kaw asamaan yi la nga ci gis biddiw ya jant ya weer ya la nga ca xam mi malaaka ya ak yeneen yu dul loolu waaye kaw suuf it la ci nekk moo ko moom booy wàññi sa bopp ngay commencé moomum nit ñi moom bàyyuma yi moom ndox yi moom ngelaw yi moom lépp lu nekk ci kaw suuf kon luy xéewulu àdduna ci moom lay jóge mu ne walahu alhamdu fi alaxira moo ne mboole mi xéewulu àllaaxira yëpp ci moom kese lay jóge mbokk mi ngi noonu àllaaxira suñ borom nee na mooy yowma la tamliku nafsun li nafsin shay'a kenn du mënal moroomu bakkanam dara lépp ci yàlla lay jóge looloo tax jaamu yàlla amul àllaaxira waaye suñu boroom dana def julit ñi lépp loo xam ne soxla nañ ko borom bi mu ne da'waahum fiha subhanaka allahuma wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil alamin waa aljanna lépp lu ñu soxla suñu borom nee na dañ naan sell ñeel na la yow suñu borom dégg nga mu ne nañuy nuyontee mooy jàmm jeexitulu ñaan ba mooy alhamdulillahi rabbil alamin tey lu sa xel dem ci lekk caamin bi namoon tey ay cokkeer ndakaaru amul cokkeer waaye yaa ngi biir àjjana nga nam mu cokkeer daa di ne subhanaka allahuma cokkeer ñi nga xam ne mooy wildaanul muxalladun yi daa di lay wër ak palaatu cokkeer yi fi sa ñaan di dale fi la ñaan gi di nangoo lépp loo xam ne bëgg nga ko yonent bi alayhi salaam mu ne ñi dundoon ci amuñu njaboot bu ñu ñaanee yàlla njaboot ci saasi la seen soxna yi ëmb ci saasi la seen soxna yi wasin ay doomi aljanna ay kon loo bëgg rek mi ngi noonu axiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil alamin ndax lahu alhamd fi alaxira ku dugg aljanna moom ngay sant ku mucc ci sawara moom ngay sant lahu alhamd fi alaxira borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne muy alxakim lépp lu mu tëral rek noonu la lu ne teg na ko fam ko war a teg gis ngeen ca it mooy ki ñàkk kumpa ñàkk kumpa googu tax na ba lépp luy dugg ci kaw suuf xam na ko ngi noonu luy dugg biir suuf xam na ko la ca gën a itteel mooy néew yi ci dugg yépp yàlla xam na leen depuis bay aadama ba suñ jamono yi tey jamono yële passé maa ngi déggoon caaxaankat yi naan yaa à peu près quatre-vingt-sept milliards ci doomu aadama ñoo jot a dund ci kaw suuf wallaay waxuñu dëgg yàlla rek moo xam ay mbindaa fanam waaye ala kulli xaal cent milliards la ñoom mille milliards la ñu suñu borom mu ne xam ne lépp ca am na téere bu koy wattu gannaaw ba lañ ci dugal ci biir suuf yow mi ji say pepp ak say ñebbeeg say yëpp yàlla xam ne lépp lu dugg rek yàlla xam na ko li génn ci biir suufit loolee meññeent la bu mu mën a doon amul benn pepp boo xam ni rëcc na ci sa borom jëll waala na doon pétrole ba ciy génn ndox ma ciy génn or manganèse lu mu mën a doon ci milliers de matériels li mën a génn ci suuf yàlla mën a xam na ko waa gaa yi ku ko fa defoon lu yàllaa ko fa defoon da nga noonu ba ñuy ci posu jàmbur rocc ca dara lam ci jëli xam na ko ndax moo ko fa defoon moo tax mu ne xam naa lépp luy génn ci biir suuf gannaaw bi liy wàcce kaw asamaan da ca gën a màgg di malaaka yi wàcce wax yu waaye taw bay wàcce kaw asamaan la leen di jóge kaw asamaan loolee ci ay dënu yoo xam ne ni ay melax lay doon yuy lakkaate ak lu mu mën a doon suñu borom yàlla mu ne xam naa ko lépp luy yéeg kaw asamaan ci jaamu yàlla yi yàllay def nga xam ne tasbiix yeeg jullee yépp day yéeg lépp luy yéegaat jóge kaw suuf jëm kaw asamaan ci ay malaaka lépp loo xam ne ndox la buy évaporé wu di naaw jëm kaw asamaan suñu borom yàlla mu ne xam naa lépp mu teg nag ne mooy arrahimul gafuur li ëpp ci téere bi danaan mooy jéggalaate mooy yërëmaate waaye fii mu ne mooy arrahim gafuur lu tax maadaama ay xéewalam la ñuy wax moo tax mu jiital rahma bi fii waaye lu bari dañu jiital njiggal gi doogu indi rahma bi te loolu lépp mi ngi ko def ci yërmande mbokk yàlla moo ñuy may li nekk ci kaw asamaan may ñu nekk ci kaw suuf mu ne saxara lakum ma fi samawati ma fi l ardi jamian minhu loo gis ci asamaan doomu aadama yi moo tax yàlla def ko biddiw yaag jant yaag weer ya loo gis ci kaw suuf géej yi ngelaw yi ndox yi lépp yàlla mu ne yéen a tax ma def ko yéen a tax ma tàggat ko saxara lakum ma fi samawati wa fil ard mi ngi noonu loolu nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne mooy ka nga xam ne moom mooy kiy jéggale kiy ramaate amma yéeféer yi yéeféer yi ñoom ñi ngi sax naan ah waaye dee dekki loolu du am àllaxira amut yow yonent bi nee leen maa ngi waat ci sama borom qul bala wa rabbi ay waay yow xamal julit booy waat bul waat lu dul ci yàlla julit di waat lu dul ci yàlla nee leen maa ngi waat ci sama borom ne bisu penc dana leen dikkal sama borom boobu nga xam ne moo xam lépp loo xam ne kumpa la te dara du ko rëcc même loolu boo toloon ne zarra la ca arab yi xamoon seen langage mais am na sànq leen ñu ndaw yoo xam ne boo tegoon fii sa patu suukar dañu koy dañ fay nekk tuuti lool lañ daan tudde ay zarra bu dee jamono ci moom scientifique yi toujours dañ daan ay atome mi ngi noonu ndax atome yooyu nga xam yi fu nga multiplier ko des millions de fois pour gis ko ci na am te hatta atome boobu boo demee ay particules ci nekk ay yu kenn xamul te doomu aadama li yàlla subhanahu wa taala defar masalan dañ naan la rek lu mel ni cellules yi nga xam ne doomu aadama ay centaine de milliards de cellules la ci am ñu naan la chaque cellule li ci nekk ci ay données mën nañ ci génne lu quatre cent livres de quatre cent pages kon la gën a tuuti ci lu doomu aadama nga xam nga xam ne il faut ñu multiplier ko des centaines de millions de fois loolee mbokk suñu borom nee na loolu réeru ko te yow boo ci amee sikki sàkka ne yàlla dara du ko rëcc bàyyil ba mu taw nga jël pepp dugub bu ndaw nga dem ba ci ab àll nga gas dugal ko foofu nga dem toog une semaine après nga ñëw xool looy ñëw da ngay fekk génn na ba génn ak ñaxawaay kon kooku yàlla sàgganewu ko am déet mi ngi noonu bu la neexee boo koy dugal dëpp ko xam nga pepp bi li ci bopp bi ci kaw mooy màgg jël ko dëpp ko nga xool boo ñëwee da ngay fekk yàlla wëlbatir ko na ko ba génn ko muy dem ci kaw ay kon dara du ko rëcc misqaala zarra li gën a tuuti dara ci suñu jëf rëcc ko loolu mu lay won julit du xeeb lu baax julit du xeeb lu bon amul lenn looy def lu dul pay ga mi ngi lay xaar yowm alqiyama fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charan yara suñu borom yàlla nee na lépp maa ngi ko denc ci téere boo xam ne téere bu bir la loolu mi ngi noonu sunu boroom jalla wa ala
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
sunu borom jalla wa ala mu ne li yajziya allazina amanu ngiree mu fay ña nga xam ne dañoo gëm wa amilu salihat di jëf-jëf yu yiw ya ulaika lahum maghfira ñooñu de dana leen ñeel ak njëggal wa rizqun karim ak wërsëg woo xam ne wu tedd lay doon walazina sa'u fi ayatina ña nga xam ne nag ña ngay dox ci suñu aaya yi mu aajizina di jéem a lottuloo suñu aaya yi di ko jéeme échec loo ulaayika lahum azabun ñoom day dana leen ñeel mbugal min rijzin alim ci sànj muy mbugal mu ñaaw bu leen di toroxal boo xam ne bu tar lay doon wa yara allazina utul ilm dana gis ñi nga xam ne dañoo jotoon xam-xam allazi unzila ilayka min rabbik ne lii nga xam ne wàcce nañ ko mu jóge ci sa boroom huwa alxaq lool day muy dëgg wa yahdi ila sirati alaziz alhamid te ma ngay jëme ca yoonu ki nga xam ne moo not lépp ci kattanam ka nga xam ne cant yépp mooy kaka yeyoo jalla wa ala mi ngi noonu wa qaala alladina kafaru ma ngay wax ba tey yéefér ya hal nadullukum ma xanaa yéen du ngeen kaa ñu tegtal leen ala rajulin yunabbi'ukum ci góor goo xam ne su ngeen demee da leen di xabaare ne leen ida muziqtum kulla mumazzaq ne bu ngeen demee day ba tasaaroo gépp ak tasaaroo ci biir suuf mi ngi noonu daggatoo gépp ak daggatoo ci biir suuf innakum la fi xalqin jadid na yéen day dañ leen di tegaat ci mbindin goo xam ne go bees la mi ngi noonu mbokk gis nañu sunu boroom subhanahu wa taala mu ne mi ngi jël lépp lu jaamam yi jëf bind ko ci ab téere ngir ñi nga xam ne gëmoon nañ cay def lu baax yàlla subhanahu wa taala fay leen ca seen jëf jooje ca borom bi subhanahu wa taala mu ne dana leen jéggal may leen wërsëgu tedd ca mbokk jullit da ngay gis ne bakkaar léeg-léeg munta ñàkk ci nit ki man ngaa xalaat ne waaw man day maa ngi def lu baax ñu ne àddina lañ jëm waaye jëfi moy yi ma def nag te loolu day jur mbugal nag naka lay demee suñ borom mu ne bu sa ngëm sellee say jëf yu baax sell soo ñëwee danaa la jéggal say bakkaar ca itamit danaa la mi ngi noonu may wërsëg bu tedd borom bi ne inna alxasanaat yuzhibna sayiaat ki rafetal jëfam yu tedd ya da ngay gis ne day yóbbu la nga xam ne mooy jëfam yu ñaaw ya loolu mbokk mi ngi noonu am na yéeféer yi nga xam ne guddeeg bëccëg ñi ngi dox pour fay diine yàlla ji pour xeex aaya yi borom bi ba nit ñi bañ koo gëm suñu borom yàlla mu ne ñu mel nii day mbugal mi ngi leen di topp moo xam ne mbugalum sanj bu bon lay doon ca biir la nga xam ne moom mooy sawara am na suñu borom mu ne ñi nga xam ne jot nañu xam-xam dëgg-dëgg xam-xam ñoom day gis nañu ne li jóge ci sa boroom loolu mooy dëgg na am bokk xam-xam boobu dana nekk ñaar benn mooy ñi amoon xam-xamu téere yu jëkk yi te yahudi ak nasaraan ya suñ boroom mu ne yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum nee na boroom xam-xamu yahudi ak nasaraan yi xam nañ ni diine lislaam bii mooy dëgg alquran yi dëgg muhammad yi dëgg ni ñu xamee seen doom yi ñu jural seen bopp gis ngeen ndax mandarga yu leer yi ñëwoon seen téere ca yépp alquran indi ko waaye gannaaw loolu itamit mbokk julit mboolem ñi yàlla may xam-xamu àdduna ñu ngi leen di wax benn film boo xam ne traduire nañ ko sax en français tudde ko ceci c'est la vérité benn documentaire bu ñuy wone la nga xamee ni nii moom la alxuraan wax ci mbir yoo xam ne scientifique la na doon ci wàllu njur mu embryologie bi na doon ci wàllu biddiw yi après astronomie la nga xam ne moo jëm ci wàllu suuf yi yooyu yépp gaa yi jël aayo yooyu dem won ko ay scientifique yooyu bokkul ay nationalité am na ci américain ay japonais ay européens ay yu demee noonu ne leen pourtant découverte yi ñi yi ñu ngi ko trouvé en dix neuf cent yi en dix huit cent yi ila axiri ñu ne mi alxuraan waxoon na ko bu yàgg loole da ngay gis ne ñoom da leen di yéem ndax loolu naka la mën a nekkee ca kon day wane ne kon la chaque ne doomu aadama ci période boobu mënul woon a xam lii kon day wér ne alxuraan ji ci yàlla rek la mën a jógee ña cay tuub tuub ca ña ca tuubul tuubuñu ca boo ci jëlee rek tey jii li sunu borom mu ne wa anzalna alxadida ñun ñoo wàcce le fer mbokk scientifique yi dañ ne li nga xam ne moo nekk ci biir suuf ci ay météo or yaag xaalis yaag manganèse yaag yu demee noonu ñu ne loolu ci ay junni junni at millions yi at wala yaa xam ca la formé woo ci biir suuf ci chaleur bi jant bi def te effet ci suuf boobee bu dee ñoom dañ naan par hasard donte la ñun dañ naan par yàlla ñu ngi noonu amma bu dee le fer ñoom dañ naan fer mënul formé woo ci biir suuf scientifique yi bu yàggul lañu doog a jàpp ne gis ne lii logique fer ci ay météorite ay planètes yu jóge ci kaw asamaan fa la daggee wàcc ci biir suuf alxuraan depuis quatorze siècle suñu borom ne anzalna al hadid ñun ñoo wàcce fer loolu kon muy benn ci mille preuves scientifiques yuy wone ne ah alquran ci yàlla la jóge moo tax suñu borom ne borom xam-xam yi de ñoom xam nañ ni lii ci yàlla la jóge moo tax duñ ci am la nga xam ne benn sikk sàkk mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala daa di ne ca it mi ngi jëmee ci yoon boo xam ne yoonu al aziz mbokk alquran mi ngi lay teg ci yoon boo xam ne ki ko tëral mooy ki dara tewul ca moo digaate ne ki jaar sama yoon bi danaa ko teral adduna danaa ko teral alaxira ndax muy al aziz ci ki nga xam ne cant yépp ci moom lay dellu lu way am ci teraanga ci moom la jóge wallahi luy teraanga ca Amérique ak Europe ak fu mu mën a doon yàlla ko fa wàcce pour nattu leen gis ngeen sunu borom mu ne nag buñ jàpp ne annama numli lahum nusaari'u lahum fil xayraat dañ leen di wàccel xiiwal ngir dañ leen a bëgg déedéet innama numli lahum li yazdaadu isma loolee ngir yéeféer heure bu ko yàlla yu dolli xiiwal ngiree bàkkaaram dolleeku waaye yow julit gëmal ne sunu borom nee na téeréem bii day moo la yóbbu ci yoon boo xam ne ca nga mën a texee lu tax mooy yoonu al aziz ki nga xam ne ku jaar ci yoonam mujj ga fokk da nga sant amma yéeféer yi ci saboote giñ daan saboote diine yàlla ji li yàlla naan yasawna fi ayatina mu'ajizin da ngay gis ku daan dajeeg moroomu yéeféeram bu déggagul li yenenti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax mu ne ko waaw yow ndax dégg nga xabaar bi xew xanaa lu ngeen kaay moo wax leen benn waay day nee na suñu dee ci biir suuf ba nekk poussière yàlla dañuy dekkalaat ñu jóg taxaw mi ngi noonu xam nga loolu la ñuy tudde saboote ak la nga xam ne moom mooy kokkali donte ne mbokk yàlla mi nga xam ne moo ñu bind nee na fa lillahi alxujjatu albaalixa la yi gën a mat mi ngi jóge ci suñu borom looloo tax amul benn saboote bu ñu indi amul benn laaj bu ñu indi lu dul suñu borom tontu na ko nu mu gën a rafete doonte ne dañu amoon aada di yem ci sunu ñaari page yi waaye incha allah buñ fa dajee suba daañ gis ban tontu la leen borom bi jalla wa ala di tontu yal nañu yàlla boole ci ñi ko gëm ca gëm bisu pencam ëllëg buñ fa dajee mu boole ñu ca ñi muy teral adduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ala kulli xaal ab teen ji moom mi ngi commencé bis ba sa jëkkër faatoo foofu la teen ji bay commencé bu doon tele dafa faatu woon un mois nga koy doog a yëg ca xabaar yu wóor ne moom kat faatu woon na un mois en arrière su boobaa ñetti weer ak fukki fan ngay tënji loolu la ci borom xam-xam yi wax mooy tënji baa ngay déparé bis ba mu deeyee xabaar ba leer même buñ demoon ba ñetti fan des yi ñetti fan moo ca des mais loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a wér am na ñenn nag ñoo xam lu ñuy wax ci mazhab Malik naan bis buy dee du ci bokk waaye mbokk la chaque année sunu borom yàlla dane ñi faatu seen jëkk seen soxla nañ nañ tënj ñeenti weer ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan yooyu bis boobu fokk mu bokk ci wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ala kulli haal kon insha allah bu dee mbokk yi waaw bismillah naam ndax julli tàkkusaan dafa am yeneen daraja par rapport ak yeneen julli yi naam mbokk la ëpp ci borom xam-xam yi di sunu borom yàlla di wax ne xaafizu ala salawat wa salaatil wusta wattu leen julli yëpp ca wattu julli gu diggu doomu ga tegtal yi gën a bari mi ngi ñëw ne julli tàkkusaan la donte ne wuute nañ ca nañ wuutee ci laylatul qadr waaye tegtal ya gën a bari te yonent bi wax ko keroog xasutul ahzab bañ demee ba jant bi soo omar ñëw na ko man day julleeguma tàkkusaan mu ne ko wax nga dëgg de yàlla na yàlla rëbb leen man it sax maa ngi ni julleeguma tàkkusaan donte ne booba dañu salaatul xawf wàccagul woon mu ne yonent bi dana shagaluuna ani salaatil wusta itteel nit ñi ba julli wuñu salaatul wusta kon loolu day wañe ne mbokk julli yépp am solo mais julli takkusaan moo gën a màgg ci julli yi ñuy julli ci jour bi wallahu subhanahu wa taala alam naam waa ji tëdd nelaw bay xandoor ku mel noonu boo jógee dafa war a dem jàppiwaat borom xam-xam yi fi ñuy am yenn ci ay uute mooy ki toog c'est-à-dire que waa ji toog na toogaay bu mat boo xamee ne nii am na njort ne ni mu toogee dara du génn ci moom waaye la ca gën a digg doomu ca gën caa dal xel mbokk nelaw ñaari façon nelaw la am na lu ñuy tuddee somnolé tubaab bi di ko wax somnolence mooy waa ji day dajjant mais quand même boo na koo diw mun a xam na mais waa ji nga xam ne dafa dem complètement di xandoor ba kii kooku mbokk booy li la la gën a dal xel mooy na jóg mu dem jàppiwaat ndax teqalikoo na ak xelam yonent bi alayhi salaam da doon wax naan suufu doomu aadama day la koy téye mooy am xelam donc kenn ci yéen bu nelawee nga dem jàppiwaat loolu mooy la gën a dal xel amma bu dee ne masala boobu nga wax moom xëy na yàgg nañ cee wax waaye masala la bu compliqué ci borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari waa ji julleegu ma tisbaar ñëw naa fekk ñu julli takkusaan am na ñu ne yéeneel tisbaar ànd ak ñoom bu julli gi pare nga jóg julli takkusaan bu doon lu mel ne mazhab Malik gën a déedéet loolu baaxul ndax yàgg imam wur leen a juuyoo bu leen juwee la nga xam ne moom mooy seen yéene su ko defee loolu moom da ngay gis ne bokk na li ci gënoon a dal dal xel ca kenn waxul baaxul mooy fekk nga ñu ngi julli tàkkusaan àndal ak ñoom julli tàkkusaan loolee day nekk ci yow naafila ndax même bu doon da ngaa julli woon tàkkusaan sa kër ñëw ci jàkka ji fekk ñu julli tàkkusaan da nga war a ànd ak ñoom julli tàkkusaan su ko defee buñ jullee tàkkusaan ba pare yow bu ñu sëlmalee nga jóg fay sa tisbaar fay sa tàkkusaan lii daal da ngay gis ne moom ñëpp xam nañ ne baax na am na nag yeneen yuñ ca wax yoo xam ne ñii ne nañ baax na ñii ne nañ baaxul mi ngi noonu tonte ne ne li gën a jub mooy nga seetlu gën a dal xel daal mooy lañ jàpp ne ñëpp baax na wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi noonu waaw ñu mujj ci bokk bi rek waaw.
asalaamaaleykum. ci wàllu tëj boobu jigéen ñi nga xam ne jëkkëram faatu na. mu yéex a xam xibaaru faatu bi ba romb dayoo tëj bi kooku lan moo ko war
ala kulli xaal bu dee ne ay nit ñu wóor ñu ñu wóolu ñoo ñëw ne ko sa jëkkër day faatu woon na booba am na juróomi weer wala paase na ñeenti weer ak fukki fan li ci borom xam-xam yi wax su boobaa tënjëm jeex na ndax suñu borom dane ñi faatu soxna yi nañ toog 4 mois 10 jours. maadaama faatu na su boobaa da ngay gis ne quatre mois dix jours passé na kon délai boobu passé na te gisuñu fu ñuy fay délai fu ñuy fay ab tënj comme ni ñuy fay julli su ko defee passé na passé na mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain